Parce que l'homme doit être vraiment tolérant. L'homme doit être vraiment un modèle pour sa femme. Et concernant euh, le fait de frapper une femme ou de la maltraiter, je pense que c'est une chose démesurable qu'on ne peut pas imaginer. Donc en fait, il faut aussi se remettre en question, euh, avoir une certaine tolérance euh, pour les femmes et aussi la femme aussi en échange, euh, avoir aussi euh, vraiment euh, un comportement aussi, euh, parce que la femme aussi dans un foyer doit être vraiment une femme soumise, une femme compréhensive, une femme qui doit vraiment écouter et vraiment être soumise, comme j'ai l'habitude de le dire, obéissante, totale. pour la femme. Et je pense que c'est une chose qu'on doit respecter et qui est dans ces sociétés. Et c'est et c'est pas la première fois. Peut-être euh, c'est une chose qu'on a mis euh, sur les nets et tout, euh, mais c'est une chose qui est là et ça fait longtemps que euh, euh que les femmes battues sont là au Sénégal. Et je pense que les autorités peut-être auront quelque chose à faire sur euh, sur ce truc-là. ñu gën a tolérant parce que ñun jigéen dafa am lu ñu yàlla bindee te dañ ko mel. il faut que nga am benn tolérance déjà pour mën a nekk ak ñoom donc góor su fekkee ne da nga dem ba vraiment sa xol may la ngay mën a def yenn nay jigéen je pense que yow kenn waratula sax boole ak jigéen euh, à plus forte raison ñu lay may jigéen donc c'est juste un message boo xamante ni que c'est pour les hommes aussi ñun aussi jigéen ñi tam ñu ñu seetaat suñu taxawaay seetaat aussi naka la ñuy doxalee di xool aussi yan góor la ñuy sëyal c'est très important nouvelle génération bi ok mais nouvelle génération bi je les encourage parce que c'est une continuité comme j'ai l'habitude de le dire parce que ñoom si Sidi Diop ñoom euh, ñoom Wally ñoom euh, vraiment euh, la nouvelle génération bi nga xam ni laa fi fekk Queen Biz ñoom Guigui ñoom des mais ñooñu donc ñooñu dañuy ñëw apporter li nga xamante ni loolu moo leen wax parce que ñun bi ñuy ñëw dañu topp suñuy grand ñun dañu ñëw ñu fekk suñuy grand mais buuxantewuñu ak ñoom dañu ñëw topp seen ginnaaw ñoom aussi dañu ñëw aussi vraiment ak respect ko continuer ko donc euh, bu dee sama doom def ci def benn morceau comme li nga wax c'est moi qui l'ai invité moom deful boppam pour artiste boo xam dafay ñëw pour buuxante dans la scène musicale non et là je fait par passion bi ma nekkee États-Unis dafa daan woyantu di ma koy envoyé bi ma dégloo que vraiment euh, euh, ça bi ma ñëwee ci laa ko fekk sax mu nekkoon ci après si laa ko jël je l'encourage c'est juste benn encouragement boo xamante ni dama ko koy def su fekkee daf ci bëgg continuer aussi dama ko ciy percer mu continuer si awma ci benn problème mais jeexal moom je pense que bon peut-être peut-être terme la boo xamante ni que da nga koy utiliser je respecte mais c'est pas méchant du tout c'est pas c'est pas méchant du tout mais fin de carrière mënu fi nekk parce que li tax ma ne fin de carrière moom mënu fi nekk artiste mosoo gis artiste bu retraité nga gis artiste bu woy bay màgget bay daanu ci suuf Sénégal laa gis artistes yoo xamante ni euh, que les gens par les artistes ku jóg ñu ne mag ñi lii bëgg a comparer xale yi ak mag yi et ça aussi euh, euh, dama koy lancer aussi les journalistes wala peut-être ñi nga xam ne ñoo ñuy bind parce que aussi ñoom ñooy faral di def les comparaisons qui sont vraiment pas normal du tout parce que génération yëpp am ñun dañu ñëw fekk fi ñoom euh, salaam ñëw fekk fi ñoom maam góor mais ñun dañu ñëw ñu topp seen ginnaaw ñu ñëw di digganteex ñoom xale yi aussi ce qui est sûr et certain mooy li ñuy def li ñuy war a def mais gars yi faire des comparaisons yoo xam ne c'est pas normal c'est pas normal et moi je suis désolée mais je n'accepte pas ça te maa ngi leen di ñaan aussi qu'on me compare à personne vraiment parce que loolu dafay indi ay jaxase mag yi ak xale yi te mag yi ak xale yi dafa war a am respect bu nekk seen diggante ñun ñu ngi fi dañuy way ba saa bu ñu nekkee ñu arrêté mag ñi tamit suñuy mag ñu ngi fi continuer di way grand Youssou bi muy way boobu lu tuuti laa ba léegi mi ngi way. 2 3 4 un temps fort 1 2 3 4 et la malheur se joue en temps faible 1 ah là là où se joue la parole c'est sur le plan euh, quand même d'exporter euh, euh, de, de notre fameuse musique. Mais je pense qu'avec la nouvelle génération, ils vont essayer de trouver le, la chose. Je suis conscient, je suis en train d'écouter les jeunes. Tous ces jeunes rappeurs, tous ces jeunes DJ, je ne sais pas, les non-face et les, et les, et les autres. Je suis en train de comprendre que les gens sont en train d'internationaliser, d'exporter la parole avec un but euh, universel. C'est ça notre problème et ça, le professeur il sait nettement que l'Orof évolue tout dernièrement. Donc, euh, tous ces rythmes qu'on entend souvent sur le plan international sont venus de, de, de l'Égypte ancienne. Donc, le Peul, le Diola, le Tougoulou, tout ça, on a un de rythmique international en temps fort. Or, la balade, on a un, deux, c'est le deuxième temps qu'on joue la balade. Donc, l'international, l'anglais, le, le, le, le français, autres ne peuvent pas comprendre notre balade. Donc, c'est à cette nouvelle génération vraiment de nous amener, de nous faire visiter euh, comment dire, la Lune. <laughs> Merci beaucoup. Bonsoir. Donc je profite de l'occasion euh, pour remercier mon frère Salam Diallo qui est là aussi. Parce que vraiment, il a été présent depuis lors. Et mon ex aussi, comme les pères que salaam bi ma koy xam boobu commencé gu ma sax musique donc j'étais tout petite donc mu nekk sama frère nekk sama càmmiñ je remercie aussi maam maam Góor qui est présent nga xam ni moom démb démb démb démb laa ko ko wax mu vraiment ñëw donc je le remercie et je remercie tous les artistes yi nga xamante ni d'accord d'accord je remercie tout le monde ah c'était juste pour euh, pour euh, ma def benn remerciement ci sama frère yi ñëw. il faut ñu xam CD bu fi jógee parce que nouvelle loi des droits d'auteur et des droits voisins dafa nekk sur ce qu'on appelle la copie privée la copie privée mooy lan mooy bépp support de diffusion bu dugg Sénégal boo xam ne war na fi dugg muy CD bu vierge wala disque dur bu vierge wala clé USB bu vierge wala lépp luñ mën a sotti œuvre artistique buy dugg douane avant ñu koy utiliser dafa am pourcentage boo xam ne dañ koy verser directement SODAV mu redistribuer ko les artistes pour bu ñu amee tournée wala ñuy créer donc il faut que ñu def attention et que ñu def ay gëstu ci suñu métier yi parce que moi temps quand même que en tant qu'artiste que ñi nga xam ne ñoom laa jox samay ñu ëpp ma xam-xam ci li may def ngeen baal ma